ñeenti xeeti relation moo am diggante nit ak nit benn bi mooy relation bi nga xam ne da nga ciy jariñu mu jariñu ci bu ñaareel mooy bi nga xam ne da ngay jariñu mu loru moom bu ñetteel mooy bi nga xam ne da ngay lor sa bopp jariñ ko bu ñeenteel mooy bi nga xam ne yéen ñaar ñëpp ciy loru ba ca gën nag mooy bi nga xam ne da ngay jariñu mu jariñu léegi cofeel gi ñu am ci Sëñ Tuubaa nun la jariñe kon lan lan la war a mën a jariñ Sëñ Tuubaa mat naa lijjanti ma ni sëriñ Abdul Ahad dafay nettali ci màggalu Tuubaa mu jub si comme nii mu jub si nii muy nettali di wax solos màggal gi jamono booba sëñ Mbàkke Madina mi ngi defar mi ngi defar jàkka ji ci Daaru Xuloos sa àgg ba sëñ Abdul Ahad dafa wax ni jàkka ji sëñ Mbàkke Madina defar tey fi la sëriñ Tuubaa nekkoon di fi def li i'tikaaf rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko fi laaj ko ànd ak saxaaba yi ànd ak ahlu badar boobu laaj ko lu mu bëgg mu ne ko ñii nga àndal ci laa bëgg a bokk yonente bi ne ko ñi ma àndal day la ci daan boole nit faat na ndax tuur deret moo ci daan boole nit te tuur deret weesu la la ci mën a waat nag bari na nit ku dem ba toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo laaj ko lu mu bëgg du bëgg lu dul lii nga bëgg te bu ñu ko ko yanee dana dem ba ci biir du ko mën a dékku te bu boobaa dana fa doxe yàqule ba faw te yow nag da ngay sama waayu bopp yoo xam ne bëgg lu ma la loolu ñetti weer moo la tee doon xutbu sama bés ni ki tey mën nañu laa tëbal ñetti weer yooyu nga doon xutbu sama nee na sëriñ bi ni ko loolu de baax na lool waaye nag sama jës jéggi na lool waaye tey nag sama ruu laa xamul lu mu attan waaye lépp lu ruu gi attan jom ji attan na eh, yonte bi ne ko ruu gi moom yàllaa ko warlu foofa la sóoboo yoonu géej mu wax ni yoon woowee ba mu tàmbalee am na juróom-ñaari at yu tegal yoo xam ne bés bu set danañu ko teg ci ab ñett ab nattoo ak i coono lu ko fàttiloo nattu démb ba mat juróom-ñaari at yu teg jëm juróom-ñett lépp mu di ko muñ bi mu demee ba nattu bi jeex nag dañ koo xamal ni ko mbooleem bani Israël ku ci ne amoon nga këru aljanna ak këru safara seen këri aljanna yooyu bés ni ki tey jox nañu la ko mu ne yonte bi def naa ko addiya mu ne ko déedéet dara du jóge ci man di disuwaat ci man Sëñ ko kon téyel dencal la ko ba bu ëllëgee kuñ ci dimbale mu xam dañ ko dimbale foofee nag Sëñ Blaas dafa wax ne Sëriñ Tuubaa nee li mu bëggoon ci murit bu ne mooy bés bu ñu àggee ba malaa'ikatul muxarraboon yëpp teew malaa'ul a'laa yëpp teew bu ñuy tudd ba tudd turu Sëñ Tuubaa ay nitam ñooy jóg di di feesal di nat di feesal di nat di feesal bañ ni waaw ana ki nga xam ne ba ñu tuddee aw turam ba tey ay nitam ay jóg ne te moom jógagul mu ni mu ni mu ni Serigne Touba ne foofee la bëggoon mu bu ni féete ko fa ku ko fa féete ku ne na nga xam ne féete nga ko fépp mooy sagal ko ëllëg ci kanamu yonente yi ak wàll yi ak malaayikatu muxarabone ku ko fa féete na nga xam ne féete nga ko fépp ku ko fa féetewut nag na nga xam ne féetewoo ko fenn ba ci boo amee aljanna sax àjjanay gàtti nga kon murit bi jamono bu ne góorgóorlu pour am fu mu féete Sëriñ Tuubaa ci góorgóorlu kon suñu digganteeg Sëriñ Tuubaa li ci gën a li ci war nun mooy nu yor ci comportement jikko jikko joo xam ni danañ doon sagub Sëriñ Tuubaa loolu moo ci jëkk te mooy li borom waxoon da sëñ Fallou ko wax ni sunu bàyyi ci yàlla daf noo jàngal ba nu ne ar mu yar nu ba ñu ni nër mu yeenu ba nu ni jar kon murit bu ne soxla nañ ci moom lool soxla nañ moom jàng ba ne ar yaru ba ne nër yow ba ne jar loolu dafa doon sagub Sëriñ Tuubaa